dal leen ak jàmm ami site internet net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doore kàddu yi nga xamante ne kii di député bi di Guy Marius Sagna nekk activiste daal dina koy yëkkati moom nag la mu daal di xam ne rek niki tey ji nag dafa demoon seeti ki nga xamante ne moom mooy républicain consultant général bu Sénégal nekk ca Madrid ca réew bu Espagne moom nag la mu daal di xam ne rek ba mu demee dalal na ko dal bu mucc ayib daal di koy accueillir teeru ko rek comme nu ñuy teeroo buur moom vice consultant bi ak ñeneen agent yi nga xamante ne rek fekk nañ leen fa moom nag la mu daal di xam ne rek mooy Sénégal nekk na réew moo xam ne nag jamono ji ñëpp a ngi xeex rek ngir institution yi nag daal di jox nit ak ak yelleefam rawatina citoyenneté sénégalais moom nag la mu daal di xam ne rek niki démb foofa ca Madrid jot na def ay jokkalante ci diggante communauté sénégalais yi wante nag lañ fa waxtaanee de façon très publique maanaam daal waxtaan lañ ci waxtaan bu am solo wante nag ñam ko fekk am na ay africain am na ñoo xamante ne sax nekkuñu ay africain ba tey rek moom Guy Marius Sagna la mu daal di xam ne mooy sénégalais yu Espagne nag dañoo sàkk woon ci deuxième état bu ca Espagne ginnaaw bu ñu gisee ne rek kii di président Macky Sall di leen digoon ni ki 2014 que ne ministre des affaires étrangères nag dina fa ñëw ba noppi rek promettre leen li nga xamante moom mooy ñaareelu consultant boo xam ne dina disponible ni ki juillet jàpp août 2023 ba naga ni rek gisuñu ci dara ba tey rek moom Guy Marius Sagna nag la mu di xamle ne rek moom mooy ab marche wala ñu dox sax seen yitte dañ def entre jàpp 700 yoo xamante ne rek jox huit heures de temps voire même pour solliciter wala ñu gis ki nga xamante ne rek moom mooy consultant ba bu Sénégal nekk foofu ca Espagne rek pour ñu gis ko nag foofu ca Madrid nekk na mbir moo xamante ne rek mbir mu yéeme lay doon loolu waral nag ñu sàkk woon ci président Macky Sall ak gouvernement nag mu daal di leen indil ay mu daal di leen jàppale bu baax ci mbir mu nu mel ndax boobu les souffrances nag ñoom sénégalais yi nga xamante ne ñu nga ca Espagne ñu ngi koy dund moom nag la mu daal di xam ne rek mooy ma ngay sàkku naka ñu joxe passeport sénégale yi nga xamante ne rek ca googu noonu la ñu nekk ak ñi nga xamante ne nag amuñu ne nag moom mooy euh, Macky Sall ne nag ñoo nekk foofu nag te amuñu benn papier benn na la mu daal di xam ne ba tey rek mooy Guy Marius Sagna mooy justice ginnaaw rek ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci manifestation yi yi nga xamante ne rek am nañ ko ba noppi rek ma ngay sàkku ñu libéré bu baax détenu politique yi rawatina kii di Ousmane Sonko moom Guy Ismaïla Sagna nag la mu dal di xam ne rek moo di Sonko cinquième président focus 2024 Guy Marius Sagna nag mooy yëkkati yooyu les kàddu di ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi.